fan yi dama nekk sama ruq ndax sëriñ bi dafa am lu ma diggal ma koy jëfe waaye nag maa ngi si wetam fu ma toll di sant yàlla ni may na ma ci boppam lu mu tuuti tuuti fukki fan ak juróom yi nekk ñu gisee loolu sant naa ko bu baax mu Mountakha di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér màggal gi nag du ndamu sëñ tubaayam yam fi rek du ndàmbu murit yi am fi ndàmbu lislaam bi la ndàmbu der bu ñuul bi la ndàmbu képp koo xam ne dafa doon bañ nooteel sëñ tubaa kat bëggoon ko noot képp lu tubaab bi bëggoon sëñ tubaa ni ka du fi amee man gëmuma kenn man wóoluwuma kenn ku dul suñu boroom awma beneen buur bu dul yàlla sunu boroom loolu moo doon problème tubaab bi mi ni tubaab bi ni danaa doon sa buur par sëñ tubaab ni ko du fi amee man yàlla rek laa gëm mi ni ko nag kon tey danaa jël li ma sama jumtukaay yëpp teg ko sa kaw waaye benn jumtukaayam réussir tubaab bi dafa mujj fàtte sax ni moom dafay doxal mission sëñ Touba ndax sëñ Touba dem Gabon bi jaayante gu mu jaayanteeg boromam la nekk gi mu nekk njaareem ak fanweeri at ak ñett yin ko tey yëpp jaayante gu mu jaayante boromam la kon wax dégg yàlla sëñ am na foo dem fu nekk ñu fay màggal ndax lu tax daa fa fekk ay murit maa ngi dégg bërki démb waa Australie ma gis ko ci internet bi ñu ngi waajal màggal seetal tey pour jóge Sénégal dem Australie ñetti fan ngay voyager ñetti fan lu mu gaaw gaaw tey waa Océanie ñi ngay màggal am na Sénégalais yu fa nekk am ay taalibe yoo xam ni waa dëkk ba la du bokk ñoom yàlla dugal na seen xol Sëñ tubaa ñu taxaw ni danoo màggal soo demee tey Amérique fa gën a rëy dëkk ba gën a rëy capitalu Amérique sénégalais yaa ngi fa yëkk foo dem fekk nga fa ay kër sëñ Touba ay kër sëñ tubaa kon sëñ tubaa yàlla fay naka kon kay ñun ñëpp képp koo xam ni dangay ngay wax ashhadu an la ilaha illallah war nga ñëw bokk ak ñun màggal gi nga xam ni kat ñun kat màggalu lu dul suñu borom sëriñ Tuubaa jàngoro ji da nga koy gëm ni mi ngi fi ba pare nga waajal ko fagarul waaye nag soo paree nga bàyyeeg sa bopp sa boroom li noo musal si àddina bi mooy bàyyeeg suñu bopp suñu borom ba pare di fagaru loolu loolu sëñ mu taxaa wax laaj bu mujj ñu gis ne at mu jot tuubaa di jooy am ndox daanaka ay at a ngi nii ba ñu ñëw màggal ak léegi mu nekk même problème même conséquence également lan la ci président Madické di xalaat xam nga cof ji la ñu war bàyyi dëkk Touba kenn du ko cof Touba da koy yanu xool lan mooy soxlaam yëpp nga gëstu ko gëstu bu wóor nga faj ka dama ñaan président Macky Sall mu def conseil des ministres spécial pour Touba su paree mu invité yenn association yi nga xam ne maintenant nañu andal gouvernement bi ndax du gouvernement rek kay jëmale kanam Touba Touba fi mu àgg murid yee ko fi àggale waaye nag gouvernement daf si war dugal loxoom ñu àndandoo gouvernement bi def benn programme boo xam ni li dëkk war soxla yépp fii ak at yu ñu jëm ñu ka seet nan lañ koy taxawale li nga xam ni gouvernement mën na ko def man na ko def li nga xam ni murid yee ko man def ñu def ko seetal jamono bi nga xam ne jamono crise la murid yi tabax raay raay boo xam ne mi ngi ko jigéen njaareem ba Touba foofu mësuloo ko gis fenn si benn dëkk ku man tabax raay man tabax dëkk nanu gouvernement bi jàppale nu jëmale dëkk bi kanam nan la kay jàppale moy nak nu def programme bu ñu war bañ bayyi tay li metti na fi metti na rek ci yaram wi nga ni ay wonu jox la aspirine dede setal yaram wi yëpp lan mo koy dëgëral lan moy tax yaram wi man joué rolam nga seet li war yëpp nga def ko ci yaram wi soko ko ci yaram wi yaram wi dana wër te dana man pas kanam te yàlla xam na ni gëm na ni du pass que ma nek mourid rek fi lay yem gëm na ni développement Sénégal Touba il faut Touba dugal ci loxom ndax Touba ville carrefour la tey industrie yi noo wax gouvernement bi war na man lancer programme boo xam day wax ku dem Touba def sa industrie ma defal la exonération mais kooku day jaaxle Touba da ngay jaari Tamba na mu la neex da ngay jaay jaayi fuuta nam la neex da jaay jaayi ndar nam la neex jaay eh, nga dem Kaolack jaay fanam la neex nga dem Njaarim dem Louga jaay nam la neex kon kay Touba ville Carrefour la ville boo xam ne mën na jouer lu bëri si économie sénégalaise nan ko jox cëram nan ko jox àqam suñ ko joxee Sénégal dana jëm kanam jërë ngeen